ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di eh, leen wax ne tey si dañ waa ñëw ba Malika Nous avons ci l'open press de Tech Shock, Tech Shock, Malika Tech Shock, bu écurie benn Bragmolo. le jeudi 30 juin 2022 Samagaï, TechShock, Shock, Tek le dimanche 3 juillet face à qui face à Tchadou Montagne journée à Ndiaye Bord production tey ñu ngi fii ci Malika Nous avons entraînement ouvert à la presse Tech Shock, ci entraînement y a aussi ñun ak TechShock, Shock, ci question réponse sama gars yi open press bi Malika le jeudi 30 juin 2022 Le petit open press bi sama gars euh, Malika Malika waaw waaw jëlal ko koy général bu Malika ko koy général bu Malika mi ngi noonu entrée général bu Malika moom ngay am noonu général bu Malika moom ngay noonu waaw waaw bu Malika moom ngay noonu entrée général bu Malika moom ngay noonu général bu na ne participation am waaw waaw kokoy bu Malika doomu nday teg soog ñëw na de participation ci open press bi waaw kulum siñoor aussi mi ci rang yi kulum siñoor aussi mi ci rang yi waaw waaw kulum siñoor ñëw na général bu Malika ñëw na Hercule bu benn braak aussi ñëw na maa ngi seen armée ci ginnaaw maa ngi seen armée ci ginnaaw guy gi 95 aussi jëlal booy taxaw ci rang ay jàmbar jëlal écul waaw waaw waaw waaw ay jagulum si naar balo Gueye kookoy Papa Gueye mi ngi noonu Papa Gueye moom ngay seen noonu Papa Gueye ngéwal waaw waaw waaw waaw jëlal armée ñëw na armée ñëw na armée ñëw na armée ñëw na ci open press bi teg choc teg ci open press bi armée ñëw na armée 2 ñëw na armée 1 aussi ñëw na waaw waaw kooku armée numéro 2 waaw waaw waaw waaw waaw waaw jëlal Papa Gueye jëlal Papa Gueye waaw waaw waaw benn brak représente Malika représente waaw waaw Hercule a ngi noonu Tapha Niang mu ngi ci rang yi Boy Jaxaw jëlal armée jëlal général bu Malika waaw Boy Niang benn brak aussi mu ngi ci rang Siñoor mu ngi yi Wow, wow! deux ngay am noonu waaw waaw waaw waaw armée numéro deux ngay am noonu armée deux ngay am noonu waaw waaw waaw waaw waaw waaw kokoy armée numéro deux kokoy Jean waaw waaw waaw waaw ay jàmbar waaw waaw ay njaago be ka dégg galañ njaago be dégg galañ mu ngi noonu jëlal kooku Hercule la kooku Hercule la Hercule ngay am noonu Hercule ngay am noonu waaw waaw waaw waaw waaw waaw ay càmbar waaw waaw kookoy Hercule kookoy Hercule bu benn baag waaw waaw booy jaxaaw booy jaxaaw ngay am noonu Boy Jaxaw ngay am noonu doomu bàjjen am moom ngay am noonu Sadou Samba moom ngay am noonu Boy Jaxaw la waaw waaw looloo leer presse bi lépp ci open presse bi muy 95 muy tiran yi waaw waaw ay jombar sama gars yi lépp ci open presse bi teg soog génnagul teg soog génnagul teg soog génnagul waaw waaw ki waral bés bi génnagul muy Tek Choc l'adversaire l'adversaire de Thiatou Montagne génnagul waaw waaw waaw waaw Pulum Siñoor jël ko kokoy Pulum Siñoor waaw waaw waaw a ah, waaw looloo leer looloo leer sama gaay yi Cissé numéro 2 moom ngay am noonu mbër jëlal booy jaxaaw jëlal booy jaxaaw jëlal booy jaxaaw jëlal général bu Malika jëlal général bu Malika mi ngi noonu waaw waaw zee bi ngay am noonu général ngay am noonu général ngay am noonu général ngay am noonu Wow! Wow! Wow! waaw général mi ngi noonu général bu Malika moo koy am noonu Wow! Wow! Wow! waaw ay jàmbar Wow! Wow! Wow! waaw Tek Shock war na génn nag Tek Shock war na génn Tek Shock war na génn waaw waaw waaw waaw Papa Gueye moom ngay am loolu waaw waaw général bu Malika moom moom loolu général bu Malika moom moom loolu wow wow gars yi ne ko ma mën a jox ba baraade ko waaw gannaaw na bàyyi ko mu jënd rek waaw waaw armé nga yem noonu armé nga yem noonu wàcc ci suuf l'arme fatale de Ben blague mom nga yem noonu kookoy le sniper de Joko arme nga yem noonu waaw waaw jëlal Papa Gueye waaw waaw waaw waaw ci open press bi open press waaw waaw benn plaque waaw waaw muy général di armée virgule barki Seydina Mouhamed ñoo doon suñu champion am na ñu bëri xamuñu woon Malika wala benn bara ma ñëw basa basa li ma wax damaa ñëw ñu bëri xamuñu woon Malika Ba benn barat waaye suñ ko xamee ñii ñoo ko war ñooy dem ba fu sori di fayital Malika di fayital benn barat dama bëgg ku bëgg Malika Ba nga bëgg benn barat tàccul ma sa loxo ku fee waaw waaw waaw waaw parce que YouTube suñu champion waaw waaw ah dama bëgg ñu waxtaane ko ndax tey fii lay neex Abdou Abdou dama bëgg ñu teral la champion mbokk ndey buuse combat mag bay Bayla taxaw na nee na combat mag Dom Bayla taxaw na waaw waaw waaw sama gars yi lépp ci open press bi ci open press sama gars yi ñoo ngi fii ci Malika benn brak tewe ci open press Tektok le scorpion de Malika moom mooy waaj a dugg si noonu guddee na guddee lool guddee lool waaye mi ngi waaj a dugg si Tektok Malika mooy waaj a noonu

open press section choc, ci benn Malika Waouh waaw Malika Ben braak lépp benn la le scorpion le scorpion de Malika moom mooy Dougou dugg si choc pensionnaire de l'écurie Ben braak le poulain de l'arme fatale de Ben braak le poulain de armée moom mooy waaj dugg le poulain de général bu Malika moom mooy waaj dugg choc coéquipier de Boy Diakhao mi Waouh, Marley mi Marley bu aussi il est présent armée 2 ans mi Waouh, taxaw de waaw l'écurie Molo, brak mbooloo Boy Molo, bu aussi ana Pabouigi. Guy gi Waouh. Pape c'est numéro 2 aussi mi Hercule Hercule bu Ben brak aussi ñëw na teewe l'open press l'open press de qui? Shock, Choc le scorpion de Malika moom mooy waaj a dugg si noonu Tek Choc mooy waaj a dugg si noonu waaw jëlal loolu waaw waaw waaw waaw Tek Choc mooy waaj a dugg si noonu gis ngeen open press bi guddee na waaye ba gaay ñu ngi taxaw di xaar ba tey ñu ngi taxaw di xaar Tek Choc waaw waaw Papa gay ala la batterie Papa Gueye à la batterie waaw waaw Papa Gueye à la Papa Gueye à la Papa Gueye à la batterie Papa bu Malika mi ngi noonu moom ngay am noonu géwalu Tek Shock Papa Gueye waaw waaw waaw a ah, waaw guddee na na lool guddee na ba àgg ci lool sax mi ngi noonu agsi na teg soog dugg si na agsi na agsi na teg soog dugg si na teg soog si na ci open press bi teg si na boy waaw waaw mi ngi noonu na dugg si na mi noonu mi ngi noonu agsi na dugg si na ko koy ndeysaan mi ngi noonu l'adversaire de Thiatou Montagne moom ngay am noonu l'adversaire de Thiatou Montagne moom ngay am noonu Tek Choc dugg si na l'adversaire de Thiatou Montagne moom ngay am noonu teg Choc dugg si na waaw waaw waaw waaw waaw jëlal fay jëlal fay bu benn brak fay bu armée mi ngi noonu waaw waaw waaw waaw waaw waaw Tek na Tek Choc agsi na Tek Choc dugg si na mi ngi noonu waaw waaw waaw waaw jëlal booy taxaw ci wet gi waaw waaw waaw waaw waaw teg Tek Shock ñëw na teg Shock ñëw na mi ngi noonu waaw waaw waaw waaw mi ngi noonu koko Tek Shock waaw waaw fay mi ngi noonu fay bu armé fay bu benn braak waaw waaw waaw waaw tek moom ngeen di am noonu tek soog moom ngeen di am noonu waaw waaw dem na ci Père Kulum Faye mi ngi noonu tek soog dem na ci Père Faye mi ngi noonu Père Faye mi ngi koy joxe ay consigne waaw waaw waaw waaw tek soog ngay am noonu waaw waaw tension ngay am noonu waaw waaw aca tension waaw waaw urgence mi ngi taxaw jàkkaarloog moom doom waaw waaw waaw waaw général bu Malika Tek Choc waaw waaw teg general général bu Malika jëlal armée ci wèr gi poulum Junior ci benen wèr gi Hercule dafa Ñaŋ mu ngi ci rang yi waaw waaw lepp ci open press bi lepp ci open press bi sama gaay guddi 95 waaw waaw teg mi ngi nonu waaw waaw waaw waaw mi ngi noonu Coco Jackson lépp ci open press bi sama gars yi na rëb na lool jëlal booy taxaw ci wet choc teg choc la le scorpion mi ngi noonu le scorpion de Malika moom ngay am noonu teg choc l'adversaire de Thiatou Montagne moom ngay am noonu l'adversaire de Thiatou Montagne moom ngay am noonu waaw waaw mi ngi noonu jëlal armée ci wet gi jëlal armée ci wet gi jëlal armée ci wet gi Hercule ci beneen wet gi Hercule ci beneen wet gi jëlal armée mi ngi noonu mi ngi noonu kokoy l'arme fatale de Ben Brak kokoy le sniper de Joko mi ngi noonu armé waaw waaw mi ngi ànd ak mi ngi ànd ak Tek Choc mi noonu moo waral bés bi waaw waaw waaw ngi noonu Hercule Boy Jaxaaw Tapha Niang ak ki waral bi Tek Choc Tek Choc mi ngi noonu ci ginnaaw waaw 哇哇呜 Les petits open press bi sama gars yi open press bi Malika Ben open press Tech Shock open press Tech Shock mi ngi l'enfant de Malika le scorpion de Malika l'adversaire de quatre Montagne le combat est prévu pour ce dimanche 3 3 juillet 2022 Waouh le combat est prévu pour ce dimanche dimanche 3 juillet 2022 Tek Choc face à Thiatou Montagne mi noonu waaw waaw noonu kokoy Tek Choc mi noonu kokoy Tek Choc waaw waaw open press bi na sama waaw waaw waaw waaw open press shop mi ngi noonu mi ngi noonu l'enfant de Malika mi ngi noonu l'espoir de l'équipe benn Brak Mbolo le poulain du coach Kouloum mi moom ngeen di seen noonu teg choc bu Malika le scorpion de Malika

waaw waaw jëlal loolu waaw waaw lépp open press bi sama gars yi lépp ci open press bi xam naa ne léegi ñu ci question réponse léegi ñu djublu ci question réponse guy 95 la seen ci ginaaw l'adversaire de Dombaïla, la ngi seen général Malika Waouh, waouh waaw waaw waaw waaw tek sok na moon nañ la gëj gisee doo booy jaxaw ci wet gi Marley Junior Marley bu àllu ba ñaax ci beneen wet gi booy ñaax mi ngi ci rang yi Pulum Junior mi ngi ci rang yi Jean mi ngi ci rang yi waaw waaw

waaw waaw ay jàmbar waaw waaw looloo leer ko mi ko koy teg soog ko koy teg soog waaw waaw waaw waaw waaw waaw looloo leer looloo leer lépp ci open press bi sama gars yi Tek Choc mi ngi noonu moom ngeen di am noonu l'espoir de Malika moom ngay am noonu waaw waaw le score de Malika le scorpion de Malika moom ngeen di am noonu Wow! Wow! Wow! waaw waaw waaw waaw waaw ay jàmbar waaw waaw mi ngi noonu kokoy Tek kokoy Tek mi ngi noonu mi ngi noonu ndeysaan le poulain de Jéggi Siraat ana Boucar ana Boucar ana Tek Choc numéro un son grand frère Aliou man moom pare naa moom man moom pare naa moom man moom pare naa instant bi waaw sama gars yi ci fin bi ñu jëm ci question réponse ah, chorégraphie bi chorégraphie bi xam naa ñu ci ci question réponse ah. waaw waaw Tek Choc mat na mat na waaw waaw dafa tardé nag dafa tardé mbër mi dafa tardé mbër mi dafa tardé dafa génnoon moo waral open press bi goudé. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw mat na de mat na de mat na de waaw mi ngi noonu mi ngi noonu tuus bi mat na tuus bi mat na tuus bi mat na mat na mat na mat na mat na waaw waaw tuus bi mat na mat na mat na mat na sama gaay yi mat na mat na tuus bi mat na mat na waaw waaw ñu jublu ci question réponse euh, ziar ziar atam mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo Eh, di wax na dañ déplacé ah, eh, Malika nous téwé ci l'open press du scorpion de Malika en l'occurrence Tech Shock, sama de Malika et Ben braak mbolo tay le jeudi ah, en 30 juin 2022 le dimanche 3 juillet 2022 wara kan montagne l'espoir de l'écurie face. mais tay ci ñu mon sama gars mom de Malika tek shock ci open press bi man mi lay ziar. wa fay seen na ci waa maa ngi nii avant tout maa ngi nuyu xam nga ñu fi teew ñëpp di leen masawu coono vraiment ndax damaa génnoon xaw a guddee teewul ñoo ngi taaxiru di ma xaar xaw ma seen fay maa leen di jégalu bu baax a baax a waa di nuyu nag xam nga waa Malika waa écrit benn baraak maa ngi nuyu ñëpp di nuyu di ko commencé xam nga suñu tëddee fil armée xam nga te ci ñoom Hercule ba Balla xam nga. Père Faye général Malika Père Faye xam nga sama gars ñoom Jaxaaw xam nga Marley

ndax moo démissionné gars yi di ngeen ñu may tuuti de di ngeen xaar ba dimanche de may da ko wane sa premier combat ren nga bëree daan jël bu rëy Sandiaxaay l'un des de sa génération dëkk Guédiawaye deuxième combat bi ñu ne la la bruche li mu jóge ci dóor mu daanu nga jël ko bëreeg moom dominé ko am ci moom ndam instant bi nga signé deux sur deux te te nga bëree daan bëri waa daan ñu ne nag l'un des meilleurs de sa génération caatu montagne man bi ma ne sax grand bi caatu montagne man dama tiit su ma sañoon su da ngay jaar feneen nga ne grand bi man maa jël sama décision bopp caatu montagne dama koy jël avant tout lan moo la motiver ba nga jël avance su kii bi caatu montagne. waaw waaw a dafa doon sama supporter bu tàkk si man. waaw lépp loo xam ne dugg nañ ci moom da ciy dem ba mu waaw di ko xam nga ñaanal xam nga yal na ko yàlla ko yàlla xam nga euh, malaaka malaaka yu tedd yi teeru ko incha allahu rabbi waaw di nuyu waa gis di nga sant di nga sant di nga gërëm ah di nga sant di nga gërëm loolu si à la fin wala bi mu tuddee caatu montagne da ngaa tiit wala non ñun Malika lañu bi xam nga xam nga waa Malika. waaw xam nga montagne xam nga waa montagne Malika bi xam nga benn braak mbëbës yaa ngi def carte dugub parce que yaa ngi comprendre général gunge la armée gunge la ah ñoom bébé bala sama gars ñoom jaxaw amoon loolu ci ci barrière yi la ñuy yem jour si ci barrière yi la ñuy yem général bu ñëwee soutien moom ci barrière yi la yem Hercule Bouroum Junior Marley keneen ak keneen jaxa bu ñëwee ci barrière yi la ñuy yem arbitre day sifflé génn seen diggante kan Thiatou Montagne ngay jàkkaarloo ci biir géew déggoon ni mu la Tek Choc mënatul am combat bu yomb soxla ma lu yomb man bu bu naree yomb ma teg sama ngem teg ko fële loo mën man combat bi combat bi déggoo ma de Thiatou Montagne mu ci bañ bañ moo ko ji loo mën ci Thiatou Montagne dafa am lu ma dig sama supporter loo leen dig ndam laa leen di. ndam. te dama damay dem jëli ndam yi ñëw andi ko fii Malika benn baraak incha allahu rabbi. gars yi fete ko. waaw fan bu ngeen gars yëpp fete ko ñu fete ko. nga mën lan nga mën ci caatu montagne teg soog lan nga mën ci caatu montagne. moom nee na bu ñëwee dama door ma waaj. waaw. ba motul maa ko mu waaj. maa ko force de frappe. maa ko daa ko maa ko daa ko bëre. ok dégg nga li ma de. combat bu diiree moom mu ok da nga pare xeex. lu waaw kooku laa andi. bu arbitre sifflé mu bëree bu bëree. waaw ma jàpp ko daan bu arbitre sifflé mu andi xeex looy def. bu xeexee ma duma ko mu daan. teg choc teg choc nga confiance teg choc nga sa bopp teg la fa demee teg nee nga bu arbitre sifflé bu bëree nga jàpp ko daan yaa ko wax. léegi bu xeexee nga mu daanu la confiance bi fan ko jëlee nga ne tegoo ko fenn fudul ci liggéey wóolu sa bopp. mun ok avant tout sa grand frère mooy coach ah, sa mag moom lay jàngal xeex. waaw avant tout Moussa. Moussa maa ngi koy bu waaw Moussa waaw maa ngi koy bu coach la chaque jour euh, xam nga ak tàng chan ak tàng chan pa waaw noonu la rek dafa am lu mu bëgg ci ay doomam loolu nag mu bëgg moom maam du ko seddal waaw te warul sedd incha allah tant moom gisul lu ñu bëgg moom si ñun moom dara warul sedd quoi. d'accord te moom mag la da dañ ko war a teral ci làmba mhm. waaw incha allahu rabi. Euh, écurie benn braak mbooloo écurie benn braak mbooloo euh, des fois da ngeen di jël combat ñëpp ne tey ngeen deete combat bii combat bii combat bii bari na ñoo xam ne dañ ne teg soog fan lay jaar fan lay jaar caatu montagne mais semaine passée dañu gis Pulum Junior mu jël un combat capital face à qui face à Boy Jamagan bi Boy Silla mais une suite spectaculaire jël bu rëy moom lañu gis keroog yaa ngi may dégg instant bi sa doomu ndey Boy Jaxaaw mi ngi jël jëm ci un combat capital sa grand frère armé mi ngi jëm ci un combat capital nan ngeen di aborder suite boobu noonu nan ngeen koy aborder. waaw avant tout bee baal dama koy féliciter. Pulum Pulum Junior Pulum Pulum Junior di ko wax na dool na góorgóorlu. làmb mooñ ci kanamam mun na amna dole amna technique bi diko ñaanal xam nga ndam yokkute dikonya jaxaw di ko ñaanal ndam ci combat bu mu boy jaxaw ci sara la jëm waaw non dara dañ koy wax saay ko dañ koy defal jalla di ñaanal armée tamit xam nga combat armée mbay guuy gi la jël degom li la diko ñaanal ndam ñun amul dara ci lo xam dañ ko ci dugg di am lu ñuy régler di di am lu ñuy ñaar xel dañuy rend jeegi di ñaanal sama mag général yalla may ko combat général bu Malika waaw Malika mu am combat am victoire waaw ndax dafa juumoon dafa juumoon mais dañuy ñëw labali inshallah rabbi général général war na mën a combat même bu dee fii ak mois de août war na mën a combat bu dul lool début de saison déwén war na mëna décrocher un combat mais seen booy seen waa dafa soxor est-ce que lool mo koy téré am combat. Zé. wa gaay mom moom dañ koy moytu dañ koy ragal. xex bi xex bi parce que bo xolé bo xolé combat bu mu jël ni sax gaay ragal mo taxone mu jël combat bi. ok parce que dafa mel ni dafa gëstu woon. voilà dafa gestu won mais diko wax na tek tankam rek lam moo ñu ci kanamam incha allahu rabi dina choc, quel choc une victoire Ketchup Wa wa wa wa wa. ci ñëwaat après loolu danañ ci après Rakidi, ji rakk ji une victoire une victoire une victoire une victoire ci ci caatu montagne est-ce que xam nga fan la la combat bi nga jëm le 3 juillet Voici ci est-ce que xam nga fan la la waaw xam naa fu xam naa fu mu ma jëlee bu baax a baax a baax. victoire ci caatu montagne. ndax victoire nañ ko am. benn defet la am benn defet te ki ko daan mësul daan mel bébé guy gi moo ko daan caatu montagne benn defet boobu benn tache noire boobu kese la am si carrière am. amul beneen defet instant bi daan ko est ce que xam nga fu mu la jëmee. waaw daan ko xam naa fu mu ma jëmee bu baax a baax. fu mu la jëmee. ndax euh, ñu bëri ba ma jëlee combat bi ne woon waroon jël combat bi. waaw ndax man boo xoolee sama début carrière ba ba fu ma fu ma toll. lépp risque laay jël. ok yaa ngi képp ku ma bëree rek ñu ne risque la. ok te gis nga man su ma demee damay wane fulla ak fayda ak jom. yaa ngi dégg di ko wax moom bu ñëwee na dëggal boppam mm. li mu wax. waaw mu dëggal boppam dina xam ne ñun ay booy benn braak lañ ay booy malika lañ. lu wow tong lañ koy andil booy booy mbëbës ñëppay waaj. ah noonu la fa demee waaw noonu la fa demee. Eh, Tek Choc da nga di mbeur bo xamné la plupart du temps bo jëlé combat ñëpp né tay nga dé da ngay dem créer surprise dama souviens du combat face à Big Pato bi nga jëlé Big Pato Big Pato dafa daan Ada Boy Bawal numéro 2 ku xam Ada Bawal xam ko ci mëna bëré mi ngi ci lit simple di def ay résultats Big Pato daan ko jëlé bu reuy sen combat taxaw ñëpp né tay nga dé do am dara jour ji nga dem créer surprise d'une manière générale ñëpp yéemu Tek Choc fan la jaar ba daan Big Pato jëlaat nga combat sa diggante ak euh, Sandiaxaay ñu ne fan nga koy jaar do am dara nga dem créer surprise jël bi mi ngi top 5 ba légui sa diggante ak lay Bruce Lee du yow ya nekkoon favori combat bi nga jël aussi bari na ño xamne dañ ne tay nga dé do am dara do am dara gaay am na ño xamne loolu lañ wax dañ ne mëno amul fo mëna jaar caatu montagne yang may dégg est-ce que du da nga préwaat pour créer wat benen surprise wa man ci surprise la dégg déggoom li mu la dafa da yow set si ma ma am limu la wax prouvé naa prouvé yaa ngi ci teg sa bët. waaw maa la ko waxaat incha allahu rabbi bu neexee suñu borom ci kattanu yàlla bu bëree ma daan ko bu xeexee mu duma ko daan ko. incha allah. gis naa aussi le soutien ah. gis nañu la soutien le soutien. Malika benn braak mën naa ne benn la Malika benn Malika benn braak moom mën naa ne benn benn quartier la mais dama gis le soutien ah le soutien. le soutien des ténors armée ñëw na des participations générale ñëw na Pulum Senior mi ngi taxaw ñoom Boy Niang ñëw nañ ñoom Boy Jaxaw ñoom Tafa Niang yaa ngi dégg ku lim juum gars yi ñëw nañu ñoom armée 2 gars yëpp a ñëw représenté ñëw dafa mel ni gars yi dañu pare dañu def bloc dafa mel ni def bloc sa ginnaaw ñoom bu yi 95 ñëw ne la booy ndam li yox la jëli ko est-ce que gars yi loolu lañ la dee waaw di nuyu en passage guy 95 tey mu dee bay laa la jël doom bay laa la jël déggoon li mu la ragal ragal dëkk bi. ok waaw di nuyu sama gars yi ak ñoom Gassan. na ma jox kii bi waaw. dëggul daanu bi noonu demee. kon gars yi dañu leen jox la jëli ko. déggoon li mu la wax benn baraag ñoo ma ñoo ma Ngemba. yaa ngi dégg ñoom ñoo ma ngeem a xa waaw mbëbës yaa ngi dégg waaw mbëbës ñëpp ñooy sama ginnaaw parce que yaa ngi dégg kon ñun amuñu dara lu ñu lu ñuy hésité lu ñu moom la dañ koy dem jëli ñëwaat dañ koy dem jëli ñëwaat dañ koy dem jëli ñëwaat est-ce que xam nga ni caatu montagne jëlu la pour xajal la nga jàll dalaa jël pour delloo la sa place déggoom lim la teg soog képp ku jàpp ni nooy neex la yaa ngi nax sa bopp te saay bu arbitre génnee suñu diggante nga daj lu metti

wa lu ko raw lañuy andi ndax Valdo bo xolé Valdo mo ëpp sax saway té gis nga luma ko débaral ya ngi dégg mais bokul mais bokul bokul bokul bokul bokul adversaire yi non non may la ma tuddi adversaire yi bokul tiatu montagne du Valdo déggoom lim la tiatu montagne dafa ni mo ngi fas mo war na ma xam ndax toj Medina toj nga Medina mbapat toj Medina mbapat mbapat sama avance day wëndeel Medina ken jëlu ko mbapat ñu lijjanti ma licence ma dem bëri arène mais mbapat du arène déggoom li ma la wax. waw wow koŋŋ andi lu dëgër. moo tax di ma daw. ma ñëw kii man bëreegu ma arène. arène bëreegu ma. combat yi nga bëgg a bëre bëreegoo ko. yàlla xam ni bëreegu. ça veut dire adversaire yi nga war a bëreel bëreegu ak ñoom. déggoom li ma la wax bëreegu ma joxeegu ma dara. li lancement la. Matou am nga question. Matou am nga question. maa ngi Matou mi ngi lay nuyu. ñoo lay fay. nee na yaa ngi bëri ak adversaire boo xam ne agresseur la maanaam caatu montagne agresseur la day agressé waate bu adversaire si leen ne par génn digganteem ak adversaire bi day dox sa kaw caatu la mel nee na est ce ne sa diggante ak laay brisé arbitre dafa sifflé nga ne tekk xaar ko te caatu montagne du ku waate waaw tekk boobu moo jaaxal ñëpp nag gis nga tekk boobu noonu lu mu andi andi andi andi su ma nee teg dañ naan teg maay diriger. yaay diriger combat bi waaw. yaay diriger sa diggante ak caatu montagne comme li wax teg boobu noonu. moo leen jaaxal. baax na daal ji open press la man lépp pare naa lépp nag. côté yëpp côté yëpp pare naa lépp. bu dee xeex pare naa bu dee bëre pare naa lu mu lu mu décider pare naa. yaa lu mu décidé lu mu décidé maanaam jaatu montagne jour ci lu mu andi nga fekk si ko ci lu mu andi ma fekk ci bu andee bëre mbapat nga fekk si ko ci ma daan ko bu andee bëre xeex nga fekk si ko ci ma duma ko daan ko tàggatool tey open press la woon waaw wala idi waaw waaw tey open press la woon combat bi yàggatul tey le 30 le premier le 2 le 3 yàggatul dimanche la n'est-ce pas tey tey maanaam maanaam lu ci des ma dul sax 5 jours ce qui veut dire kon lamb ji agsi na ba pare mais tey li ñu andi woon ci question fii lañ koy yamale ci open press bi lan ngay tàggatoo ñu waajalaat leneen wala boog ñu waajalaat rendez-vous le 3 juillet 2022 arbitre sifflé génn diggante Tek Choc ak kii di Thiatou Montagne tey lan gay tàggatoo waaw di nuyu sama gars yi fi teew yëpp bàyyi ma kenn suma ma limee damay juum waa benn baraak Malika xam nga gis-gis mbëbës quartier Ndiouga yaa ngi dégg di nuyu ñëpp xam nga 5 heures du matin di ko gërëm bu baax a baax def na déplacement dérangement di nuyu sama ganaay yu fi teew ñëpp sama ganaay sama morom ñi nga xam ñoom laay bëri ndoo di ànd entraînement matinal ñëpp maa ngi bëgg di leen siyaar waaw di woo Krépin Diatta sama jour. Krépin Diatta international sénégalais. international maa ngi koy woo. waaw Sadio Mané. Sadio ne Malika la dëkk na ñëw. waaw Sadio Mané ñoo ngi koy woo. xam nga di woo Ndiayeem. di woo Cédric Cédric Diatta rap Krépin bi. xam nga di woo Yvon magu Krépin bi. waa di woo xam nga Alsane Ndaw international maa ngi koy woo Gueule Tapée. waaw di ko woo ci combat bi mu ñëw jàpp ci biir bu baax a baax a baax dinaa ko booleeg Moussa Teg Sok mu jàpp ci biir yi yi dem. yaa dégg di woo monsieur le ma monsieur le maire. monsieur le maire Talla Gadiaga maa ngi koy woo ci combat bi. Talla Gadiaga na ñëw ci billet yi. na ñëw ci ticket yi. na ñëw ci blogu ticket yi. ñetti blog rek baax na bu jëlee ñetti blog rek baax na monsieur le maire. waaw ñett rek baax na. waaw ñetti blog baax na di woo Aline Mbaye. Ndiogou Sow Mamadou Ba Laay Diop xam nga. di woo autorité Malika yëpp ah suñu suñu papa saw ñoo ngi koy woo. Ndiogu Sow waaw Ndiogu Sow di woo monsieur le ministre xam nga Abdou Karim Fofana. waaw di nuyu euh, monsieur le maire. Fane ok waaw waaw waa Fane waa Fane. waa nañu ñëw xam nga. Euh, Baala maa ngi koy woo ci combat bi yaa ngi dégg ñoom Mbara Assane Bala Fane Daouda DP xam nga di woo ñëpp daal su ma kii kii Pafal xam nga borom lali lu